asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum Fall 94 Walf Sénégal dellu si di leen siyaare bu baax di siyaare mboolem koy topp Fall 94 Walf Sénégal seen analyse chronique yam dañ koy defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew jaajëfal nañ leen siyaar nañ leen ñu ñëw rek ci kàddu yi euh, euh, président Ousmane Sonko euh, ki nga xam ne yaakaar naa ni heure buy def direct. nit ñëpp dañ koy bàyyi xel li tax loolu nag moom moo ko liggéey voilà ndax xam nga àdduna moom dara yombul te mën naa ni amaana eh, nit ñi danañ jóg ngir yàqal la fekk li lay yàqal ñoom ñoo koy def maanaam li lay li leen maanaam li lay li leen di yàqal fekk ñoom ñoo koy def ñoom ñoom ñi nga xam ne ñi dañoo jàpp ni yow dañ lay yàqal fekk ñoom li leen yàqal ñoom ñoo koy def xaw ma dégg ngeen maam déet waaw suñ borom nag saa su nekk noonu lay wanee mbiram moo tax chaque jour dañuy wax ni ñun réew mi dañ koo bokk dañoo war a bokk ndey bokk baay di xàccandoo di dóorandoo dara jaru fi dara ndax yaakaar naa ne ku xalaat 1960 ba léegi nii am na ñu fi nekkoon ñoo xam ne dañ doon euh, buum di buum mi am ay poste yu yu mag te li ma leen di wax ni xam ngeen ko kon yaakaar naa ni ku xalaat diggante bii nga xam ne daanaka mën naa comme xef xippi ndax àdduna moom temps ak espace fii dong la am waaw ci suñ borom moom àdduna amul temps ak espace même boo faatoo sax da nga xam ne temps ak espace amatul maanaam bis yeeg yooyu nga xam ne ak suba ngoon ak yooyu amul voilà kon loolu yëpp ku koy xalaat war ngaa xam ni maanaam fi nga xam ne fi la la suñ borom euh, euh, indi muy ci réew ndax kenn du tànn euh, réew mi nga war a juddoo wala réew mi nga war a nekk kenn du tànn tamit ni li nga war a doon ëllëg yow yaa koy def sa bopp suñ borom moo la koy def te yaakaar naa ni loolu euh, misaal la ak kawteef yeeg li nekk ci àdduna bi yëpp rek ñu ngi koy gis kon daal yaakaar naa ne chaque jour dama doon wax ni nañu bàyyi di ñu bàyyante xel ci sunu biir euh, amaana nag am na ñoo xam ne dañoo gaaw a fàtte. waaye ku nekk xam ne démb am na tey soo a ñëw te ci biir ay message am daf koy wax eh, li tax nag mu wax loolu noonu moom xam na ko ndax jaaruwaay ñëpp am nañ ko kenn ku nekk am na fooy jaar ak sa waay ba dara doonul gul dara voilà kan loolu yëpp lu mat a bàyyi xel la c'est que c'est parce que boo gisee loolu yëpp nag suñu borom di ko mooñaaleeg jaamu yàlla yi day tax bu ëllëgee rek kenn du am lay ci kanamam. ndax yaakaar naa sabab yeeg lépp rek ak kenn ku nekk fa nga jublu ak lay sa mbir loola yow yaa koy sabablu ba tax nga am ko kan moo xam lu mu mën a doon postu euh, xaalis matériel lu mu mën a doon nañu sàmmanteeg suñu digganteeg sunu borom ak sunu digganteeg sunuy moroom Sénégal dañ koo bokk euh, réew mi fi mu jóge ba aksi fii ñëpp xam nañ ko kon yaakaar naa ne dara jaru ko fi te yaakaar naa ne euh, réew yi ñu wër yëpp Sénégal rek lañ teg seen bët maanaam Sénégal rek la ñu teg seen i gët moom rek ñuy déglu loolu moom rek la ñuy xool ba xam ñoom fan la ñuy fan la fan la ñuy mujjee ñun waaye yaakaar naa la ñu bëgg du am li tax du am nag ñun ñoo koy ñun ñoo koy sàkku ñun ñoo koy wut par parloo xiiroo ŋaayoo yàgg naa koy wax saa su nekk yóbbuwul am réew fenn lii defar réew mi ak li tax ñu mën a ànd lu tax ñu mën a développé mooy faw ñun ñëpp ñu yenente jàmm bokk ndey bokk baay di xàccandoo di dóorandoo parce que lii mooy tax réew mi mën a dem lii tax réew mi mën a ñoŋ kàddu yi euh, euh, euh, Ousmane Sonko nag ñëpp déglu nañ ko dégg nañ ko ndax xam naa ne lii luñ ci njàmbaas la ak luñ ci indi suñuy analyse rek waaye nañu xam ne daal Ousmane Sonko ku mu mën a doon rek nañu xam ne réew mi dañ ko war a jël teg suñu kanam ñu liggéey réew mi dem suñu yoon loolu mooy dëgg dañu ñu bàyyi li nga xam ne daanaka xaju fi ñu seet sunu digganteeg sunu borom ñu xool sunu digganteeg sunu borom di wax te yàlla rek tax di rafetal te yàlla rek tax di ñoŋal liggéey bi te yàlla rek tax ñu bañ a parparloo bañ a wane benn fiiraange wala benn rànkiñe wala dara ñu xool rek réew mi jël réew mi rek teg ci suñu kanam ñu liggéey avancé dem suñu yoon parce que dara jëru fi yenn yi daal ñun ñëpp ñoo bokk réew mi yaakaar naa ñi si diaspora bi tey bu nu sañoon tey ji diaspora bi am na sénégalais yu fa nekk yoo xam ne daanaka bu nu amoon li leen gënal dañuy dellu siwaat seen réew ak li nu am ci xaalis ñu indi ko investir ko fii suñu réew te loolu lu mën a nekk la ndax yaakaar naa dëkk arab yi boo fa demee dañ leen dañ dañ ko yombalal seen i waa seen i waa réew kon yaakaar naa ne euh, bari na yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, man jàpp naa ni euh, politique mën nañ koo def de waaye nañu xool bu baax a baax niñ koy defee parce que dara jëru fi yenn yi voilà ku nekk daal xam na ni wax dëgg yàlla message yi nga xam ne nii Ousmane Sonko jàllale na ko euh, euh, mu nekk koo xam ne nag buy def discours moom wax dëgg yàlla euh, nit ñëpp dañ koy bàyyi xel loolu nag moom moo ko liggéey comme moo ko liggéey nag wax dëgg yàlla nag non dong la mën a demee fii gis nañ fi ñëpp topp nañ fi ñëpp. kenn ku nekk amoon nga say guddi kon yaakaar naa ni nañuy bàyyante xel bu baax a baax a baax ndax tey jii de ah euh, mën nañ koo méttital mën nañ koo euh, euh, daan mën nañ koo def lu nekk waaye nag ëllëg suñ borom rek moo xam te yaakaar naa ne nag bu ñu respectante jàppalante bu baax a baax a baax bàyyante xel yaakaar naa ni lu nekk mën nañ koo séddoo fii ci Sénégal te kenn du ci loru kenn du ci gaañu. bakkan daal wax dëgg yàlla euh, lii bëggoon nañ euh, indi ko euh, muy suñuy analise yoo xam ne nii ñun ñoo ko def ngir rek réew mu am jàmm am dal te xam ne xëccoo be xiiro be ŋaayoo bi jëru ko politique fi leen ko fekk am na ñu ci nekkoon ana ñooña tey nekkatuñ ci ñenn ñi màggat nañ ñenn ñi comme li ma ko waxee woon rek dem nañ te dañ leen di fekkee ah lu mu yàgg yàgg dañ leen di fekk àdduna kenn dëkk fi suñ borom da koo def muy jaaruwaay bi rek muy jaaruwaay boo xam ne fi ngay defaree sa ëllëg nag loolu na leer voilà ta suñ borom nag nee na lu dara taxeebul dara loolu moom na leer waaw ku jàpp ne nag wax dëgg yàlla da ngay sax fii rek acca euh, defal lu la neex voilà bu ko defee nag parce que damay dégg si borom xam-xam mu ni euh, ku dul xalaat ñaari guddi bàmmeel loola neex defal loolu wax bu doy waar la te wax bu nu mënta gëstu la te loolu noonu bàyyiwul kenn. ñaari guddi bàmmeel ku ko dul xalaat lu la neex defal loolu borom xam-xam yi wax nañ ko te ñooñu duñu waxantu duñu waxee bakkan du tax alal ñu wax déedéet dañuy waxe ni nga xam ne ni loolu lañ loolu loolu lañ xam loolu la ñu war a xamal jaam ña jaam ña xam ko kan daal euh, yaakaar naa ni euh, lii di message bi nga xam ne ni euh, Ousmane Sonko doon na ko jàllale gis ngeen ko ci image yaakaar na kenn nettaliwu ko kenn ñun liñ ci indi daal mooy ñu bokk nday bokk baay di xàccandoo di dóorandoo ta xam ne réew mi jàmm képp moo ko jig leneen lu dul jàmm rek jigul réew mi ndax réew mi ñun bariwul kan yaakaar naa nañu gën a bàyyeen tawaat xel bu baax a baax a baax kon nag yaakaar naa ni eh, dañ leen di bàyyi incha allah rabbi commentaire yaa ngi ci suuf bu ko defee rek ngeen commentaire nu ngeen gisee suñu analyse bi euh, de chronique bi nu ngeen ko gisee euh, ak tamit vidéo yi jàll nan ngeen ko gisee commentaire yi ñu ngi leen ciy xaar bu baax a baax a baax dee leen partagé nag euh, tey abone Fall 94 Walf Sénégal lii la leen indil